garab yu baax la yombute wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp asalaamaaleykum mbokk auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam amaan mbégte nag bu baax a baax a euh, toog fii ngir jégleen leen seen émission meilleur santé euh, comme ni comme ni ngeen ko xamee rek ñu ci ànd ak euh, pharmacie nationale d'approvisionnement tey jii nag ñuy waxtaanee màggalu Touba gi nga xamante ni moom la ñu dëgmal ak taxawaay bi nga xamante ni pharmacie nationale na ko ci màggalu Touba gi ci loolee itam ñu ci dalal Mouhamadou Lo docteur Mouhamadou Lo di pharmacien doon it euh, njiitu euh, pharmacie euh, régionale d'approvisionnement bu Diourbel moom nag la ñu dalal tey ci seen émission meilleure santé mais laataa ñoo xuus rek ci waxtaan gi mbokk auditeurs yi dañ koy jox kàddu gi rek mu daal di présenté wu. c'est docteur Mahmoudane Lo pharmacien chef de l'APRA de Diourbel. ñu jëm ci màggalu Touba gi ñu ne ma ko amal niki talaata gi naka ngeen fas yéene taxawee ci màggal googu ministère de la santé comme ni koy faral di def ci yi ci màggal yëpp ren itam ci màggal gi euh, organiser na benn dispositif médical dispositif médical bi day concerné d'abord formation sanitaire yi ne woon déjà dans tout ba e et ses environs mais aussi ak affluence bi am ak population bi yokk dañuy prévoir exceptionnellement liñ tudd ay points médicaux avancés léegi nag dispositif boobu bépp nga xam ne si boo ko boolee dina mat daanaka cent quatre-vingt-huit points de prestation de soin ñun PNA comme ni ko suñu mission tërale ñun ñoo leen war a jox ay garab yoo xam ne si dinañ ci mën a faj nit ñi bu ñu leen sollicité ci noonu nag lañ defar ay kit yoo xam ne si eh, danañ ko jox points médicaux avancés yi ensuite montant bi nga xam ne si mooy soixante millions yi nga xam ne si moom la état bi di joxe pour médicament yi buñ ci répartir kit yooyu ba pare dana am montant boo xam ne si euh, euh, formation sanitaire bu nekk moo xam hôpital nga moo xam centre de santé nga danañ la accorder benn montant boo xam ne si yow yaay seet garab yi ngay soxla ci màggal gi nga ñëw jël ko foofu au niveau de la PRA de Diourbel lool lépp boo ko dajalee muy ab budget soixante millions boo xam ne si état bi da ko dégager pour mettre ko gratuitement à la disposition des des des des pèlerins maintenant innovation biñ ci amoon rek mooy. Euh, contexte Covid bi ndax ku ne gis xam na ne ren dañoo nekk ci contexte bu xaw particulier avec Covid bi ñun nag loolu li ci suñu mission rek mooy fexe ba disponibiliser tout ce qui entre dans la la l'observation des gestes barrières en terme muy ay masque wala gel hydroalcoolique wala ay gants et cetera et cetera yooyu yëpp renforcer nañ ci non seulement kii di mais structures yi jël aussi képp ko soxla jox nañ la ci lépp loo xam ne si soxla woon nga ko la ca des aussi mooy centre de traitement Covid yi ñu am yooyu aussi am nañ ay médicaments yoo xam ne si bu ñu ko soxlaa rek danañ leen ko mën a jox ci anam boo xam ne si du am yenn yenn jafe-jafe loolu daal mooy dispositif bi bi ñu ko defee ba pare nag am nañ benn dispositif de veille boo xam ne si mi ngi biir Touba bu ñu amee ay besoins yu urgents ñu mën cee émission meilleure santé comme ni comme ni ngeen ko xamee rek ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement ministre de la santé et de l'action sociale di Abdoulaye Diouf Sarr ñëwoon na foofule ci Touba rendre visite dëkk bu sell boobule mën ngeen wax tuuti rek ci visite boobee ak li ngeen ci jot a li ngeen ci jot am comme information maanaam visite boobu lu mu leen jot a apporter ci màggalu Touba gi la. yaakaar naa visitu ministre bi day dugg rek ci cadre visite yi muy faral di am saa yu ñu jubee màggal gi ndax loolu at mu jot da koy def ndax euh, baax na ginnaaw ñoom ñooy définir politique yi di joxe instruction yi buñ demee ba mbir mi di waaja ak si ñu ñëw nag xool dispositif bi fu mu toll loolu moo doon objet visitam bi bi mu ñëwee aussi accompagné nañ ko te lépp lu ci laajoon ci ay ci ay leeral ci fi ñu toll ak yooyu yëpp wax nañ ko euh, liñ ci liñ ci def wax nañ leen ko li ci des wax nañ leen ko def nañ le bilan des des des des activités ndax bi muy ñëw sax fekk na wax dëgg dispositif bi lu ci bari nekk nekk en place yaakaar naa lool moo doon moo doon objet visite bi te am na ci ci ci ci anam boo xam si amul benn jafe-jafe. ndax gannaaw visite boobule ñu ngi doon dégg Abdoulaye Diouf Sarr ñu annoncé si presse bi ne euh, yóbbu na foofu la ca dëkk bu sell bi ay médicament maanaam stock médicament boo xamante ni mun koy xayma ci kaw par toll na ci dix huit millions est-ce que mun nga confirmer euh, loolu la boobu la information. question. buñ di jëlee montant yi nga xam ne si moom lañ jaglee médicament ci couverture dispositif sanitaire bi en tout cas li ci soxal PNA rek soixante millions la soixante millions yoo xam ne si comme niñ ko waxee léegi danañ ko séddale. formation sanitaire yi ak points médicaux avancés yi nga xam ne si moo dispositif bi ñu teg ci màggal. comme ni nga ko waxee rek euh, docteur la mu mel ni màggal gi ren dafa ñëw ci benn contexte boo xamante ni wax nga ko c'est marqué par le coronavirus ngeen daan teew chaque année ci màggalu Touba ren ji particulière particularité bi nekk euh, Covid 19 yan matukaay yan mooy matukaay yi nga xamante ni yokk ngeen ko euh, jamono ji ci seen wàllum dispositif dispositif yi nga xamante ni. yéen a ngi ko jël. waa comme ni nga ko waxee yaakaar na contexte bi ñu nekk nii euh, dañuy indi ci. ñu adapté wu tuuti par rapport ak euh, liñ daan liñ daan def liñ daan def rek mooy euh, bala ñuy organiser dispositif bi euh, personnel de soins bi dañuy toog waxtaan ci yan besoin la ñuy am ak nan lañ koy quantifier loolu lépp ñu men méngale ko ak budget bi ministère de la santé di di di di di joxe pour pour pour médicaments yi ak yëpp ñu ko defee yooyu yëpp buñ ko boolee nag mën a taxawal nag benn répartition répartition boo xam ne si danañu mën a may li faral di jànkonteel ci ay ay ay jafe-jafe wala ay soxla ci affaire santé ñu mën cee répondre convenablement si noonu lañ daan defaree kit yi ak ay composition yoo xam ne si dana nekk en phase avec vraiment les besoins euh, des points de prestation de de, waaye comme ni nga ko waxee ren yaakaar naa profil épidémiologique bi fa dafa xaw a changé tuuti ndax euh, au delà de liñ daan am comme affection ren Covid bi da cee ñëw yokk ci. il est vrai que actuellement euh, dans Touba et ses environs euh, presque les cas de Covid demeetu fi noonu parce que depuis maintenant plusieurs semaines. on peut mën nañoo des ay bis yu bari duñ am benn benn cas wala yooyu ce qui veut dire que euh, Covid bi wàññiku wàññiku na bu baax a baax a baax ci ci dëkk bi waaye nag wàññiku na ak jeex na fi bokkuñ loin de la dañoo wuute lool yaakaar naa tant que benn malade rek mi ngi mi ngi mi ngi am li ñu war rek mooy vigilant ak itam jël mesure yi yi mu laaj yëpp pour man cee fagaru ci ñim dalul ci ñim dal aussi ñu mën leen a fàggul ay médicaments yu efficace te baax yoo xam ne si danañ ko mën a jël bu ko defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a ñu mën a tane kon ren ci contexte boobu la ñuy dañuy dañuy lañuy la ñuy évoluer léegi nag ñun niñ ci niñ ci adapté woo mooy kit yi moom comme ni ma la ko waxee léegi dañuy xool yan affection dañuy gën a jànkonteel bu ko defee ñu composé kit yi kon ren nécessairement et forcément faw ñu adapté ko ko ci contexte ci noonu lañ renforcer tout ce qui est masque yi renforcer nañ ko ci ci ci ci kit yi renforcer nañ ko aussi ci gel hydroalcoolique yi renforcer nañ ko ci gants d'examen yi nga xam ne si moom la personnel de soins bi war a sol buñ dee buñ dee faj maladie bu loolu weesoo aussi am na liñ naan liste médicament Covid ndax ku ne xam na ne liñ déclaré Covid bi spécialiste yi nga xam ne si ñoo koy saytu taxaw nañ ak PNA ñu définir benn liste de produits ak médicament tudde ko liste Covid léegi liste yooyu ñun en tant que PNA dañ koy suivre régulièrement pour ñu ñu pour que ñu mën a bañ am benn rupture par moment sax dañu stocké ba jàpp ne suñ stock yi na fi yàgg waaye loolu mooy suñ mission suñ mission du rek dem di jaay ay garab et cetera et cetera waaye suñ mission mooy rendre disponible accessible de médicament cest diir médicament yi war naa am te bu amee population bi war nañ cee mën a jot moo xam jotuk mën a mën a dem fi mu nekk la moo xam jotuk njëg la li ñu naan accessibilité géographique ak accessibilité financière loolu lépp ñun ci suñu mission lay lay lay lay lay dugg ba tax na yooyu yëpp fexe nañ ba ñu boole ko ci kit yi ba nga xam ne point de prestation notamment point médico avancé yi buñ jotee seen kit daal vraiment danañ mën a faj liñ daan faj ensuite danañ mën a jànkonteeg situation bu bees bi di di di Covid di Covid 19 bi loolu daal mooy yi nga xam ne si indi nañ ko ci comme innovation par rapport ak contexte bu bees bi ñuy dund. yenn genre médicament ngeen mettre disposition euh, des populations euh, comme euh, c'est marqué par la la Covid 19 yenn ngeen gën di ngeen gën a approvisionner population. comme ni ma la ko waxee léegi rek yaakaar naa Covid bi moom ñaari mbir la d'abord. fexe ba ñim dalagul du leen dal loolu nag mooy liñ naan les gestes barrières léegi pour respecter gestes barrières yooyu nag li ñuy gën a recommandé mooy port de masque moo tax masque yi yokk nañ ko ren li ci des aussi mooy gel hydroalcoolique yi nga xam ne si ku ne xam na ne transmission euh, euh, microbe lu bare bare pour une large part ci ay loxo lay jaar moo tax gel hydroalcoolique yi nga xam ne si buñ ko utiliser frictionné ko ci loxo dina rey bépp microbe bu nekk ci loxo ba boo nuyoo nit wala nga teg moom doo ko jox jàngoro bi yooyu aussi renforcer nañ ko ci kit yi li ci des aussi personnel de soin bi bu def faj maladie di leen laal et cetera dinañ aajo protéger seen i loxo protéger seen i seen i seen i seen seen yaram bu baax ba microbe bi du leen dugg moo xam ay gants d'examen la wala ay lunettes de protection ak même parfois même ay liñ naan équipement de protection individuelle muy épi yi xam ne ay ay ay ay genre blouse la yoo xam ne si day daj yooyu yëpp. prévoir nañ ko ci stock yi ba nga xam ne tey tey tey yenn yi jox nañ leen ko yi ci des aussi mi ngi ci stock yi ba buñ ko soxla dinañ ko mën a jot ci anam bu amul bu amul yenn jafe-jafe la ca des aussi mooy li nga xam ne si mooy la ñuy traité patient yi nga xam ne si Covid bi dal na leen loolu ku ne xam na ne am na médicaments yi ñu utilisé d'une manière générale mais am na aussi des médicaments spécifiques lu mel ne hydroxychloroquine bi ak azithromycine bi te yooyu yëpp fi ne nii am nañ ci stock boo xam ne si amuñ ci yan inquiétude par rapport ak ak euh, besoin yi nga xam ne si xëy na centre de traitement yi dinañ ko dinañ ko dinañ ko am yooyu yëpp ay médicament la yoo xam ne si xëy na lu bees ren la ci dispositif bi nga xam ne bàyyee nañ leen xel bu baax a baax loolu yaakaar naa question bu am importance la ndax màggal gi ko gis affluence ni muy am nga xam ne li fiy daje ci ay nit dana bari lool lool lool condition yi ñuy euh, évoluer ci dëkk bi aussi xawa a xaw a jafe tuuti euh, ba ba ba tax na ñuy soxla euh, ñuy soxla vraiment ay médicaments yu doy ah, ci quantité ci quantité yu yu doy loolu nag liñ ci mën a wax mooy en tout cas daal par rapport ak budget bi ñu jot nga xam ne budget soixante million la comme niñ ko waxee fexe nañ ba daal structure bu ne nga jot loo xam ne si da nga ci man fonctionner fonctionnement bu normal boo amee ay besoins yu yu yu yuñ lay jox dañ ko mën a répondre convenablement loolu yaakaar naa liñ ci am comme taux de satisfaction yaakaar naa PNA bi ñu demee ba dispositif bi di waaja mat def nañ évaluation bi waaye buñ gisee liste li ñu tuddee liste des médicaments traceurs nga xam ne ñoom lañ tànn ngir di ci nat suñu performance weesu woon na quatre vingt dix sept virgule dix huit pour cent de taux de disponibilité ce qui veut dire que kon euh, disponibilité baa euh, disponibilité bi baax na léegi nag te budget bi ñu am mooy budget bi c'est c'est limité est-ce que suba bu ñu demee ba am yeneen besoin danañ am budget bu ko couvrir foofu la la lañ mën a laaj ay question mais état bi ku ne xam na ne soixante millions du enveloppe bu ndaw te soixante million lañ ci def maintenant li ci des aussi xëy na ñu demee ba ay besoins yu bees taxaw xëy na soit formation sanitaire yi seen bopp ak hôpitaux yi centre de santé yi danañ mën a def ay efforts sur eux-mêmes pour vraiment euh, essayer de répondre à à ces besoins là Euh, euh, euh, par peut-être la par peut-être des moyens ak jamono ji ñu nekk ci Covid 19 ñu xam ne mbooloo bu takk mooy wutali foofu la ci Touba est-ce que yaakaar ngeen ne li ngeen approvisionner population bi ci wàllum kit sanitaire rawatina ci wàllum gel hydroalcoolique dina doy ngir matale askan wi wutali foofu lay ci Touba. voilà leneen li ma ci dolli par rapport ak est-ce que médicaments yi doy na ou pas en tout cas ñun daal jël nañ suñuy disposition liñ amoon comme comme budget répartir nañ ko te yaakaar nañ ne ah am nañ njottul rafet ci ne vraiment dana mën a couvrir besoins yi waaye buñ demoon ba stock yooyu mënu ko itam am nañ benn dispositif d' alerte et de veille boo xam ne si ci innovation yi naa yi la bokk muy camion boo xam ne si vraiment identifier nañ ay médicaments yoo xam ne si ëllëg ëllëg su fekkoonte ne ay besoins urgents taxaw na structure bu bëgg danañ la mën a danañ la mën a approvisionné à temps loolu moom lañ tuddee moom lañ tuddee moom lañ moom lañ tuddee PRA mobile nga xam ne mi ngi biir Touba di di dans des conditions vraiment acceptables yoo xam ne si ñu ci évoluer et que bu besoin bu bees amee au-delà de ce qui est déjà livré dinañ si mën a taxaw ci anam bu bu bu bu bu jaadu. docteur Lo nga nekk pharmacien mun nan xam ah, door màggal Touba bi yan difficulté ngeen di faral di rencontrer ñel wàllum wàllum wàllum médicament yi nga xamante ni yenn saa yi ñenn ci population bi ñëw ne la ah man damaa wuti woon tel médicament mais nee nañ ma dafa manqué lan mooy en gros jafe-jafe yi nga xamante ni moom ngeen di jànkonteel. xam nga approvisionnement moom dafa xaw a jafe surtout en matière de santé. Euh, une disponibilité de cent pour cent loolu xëy na dina dina jafe am waaye comme ni ma ko waxee léegi en tout cas par rapport ak ni ñuy faral di liggéeyee ak besoins yi ñu faral di am li ñu définir li ñu tudd ay médicaments traceurs nga xam ne ay médicament la yoo xam ne si buñ ko analyser rek danañu mën a may danañu mën a may ñu xam suñuy performance fu mu toll yooyu biñ ko nattee vraiment. ñu ngi ci ay taux yoo xam ne si c'est c'est c'est c'est de bons taux parce que un taux de quatre-vingt-dix-sept virgule dix-huit pour cent yaakaar naa taux de disponibilité la bu bu bu bu baax. léegi nag li ci des mooy PNA ku ne xam na ne liñ tudd ay médicaments essentiels génériques la ñuy jaay médicaments yi nga xam ne si daal c'est des médicaments génériques essentiels yoo xam ne si d'une manière générale population bi nañ ko soxla. maintenant bu weesoo yooyu nag day am li ñu tudde médicament spécialité spécialité médicale yi nga xam ne si PNA du ko du ko jaay mais ci pharmacie privée yi lay lay lay am kon malaat bi dafa war dem du ko jënd yooyu dafa bokkul ci portefeuille PNA mais li bokk suñ portefeuille daal en tout cas biñ ko nattee suñu performance am nañ disponibilité bu baax a baax a baax boo xam ne si en tout cas buñ ñu sollicité dinañ ci mën a dinañ ci mën a répondre bu baax difficulté yi aussi mooy ku ne xam na ne nekk ci région am programme bu bu leer di approvisionner xëy xëy population bi multiplier wu par cinq ou par dix ku ne ko ku ne xam na ne loolu jafe na mais liñ naan euh, liñ naan la capacité de résilience moom rek lañ war a mën a wane foofu ndax itam bu fekkente ne activité bi ñi ñi ñi ñi mu ñi mu ciblé dañoo xëy xëy multiplier par cinq ou par par dix yooyu itam activité bi war nga ko multiplier au moins par cinq ou par dix lool c'est une difficulté waaye ñun nag niñ ci taxawee mooy dañuy teel a jóg c'est-à-dire buñ jubee màggal gi ay ay un mois rek dañuy commencer di réserver ay stock di constituer assez de stock di planifier ba buñ jubee ci màggal gi man ko répartir ba ku nekk jot ci kon daal dañ ciy teel a jóg lool bu ko defee bu ñu agsee ci màggal gi dañ fekk ñu am ay quantité yu baax yoo xam ne si danañ ko mën a dinañ ko mën a dinañ ko dinañ ko mën a joxe loolu daal mooy li nga xam ne si moom ci kii li ci des itam buñ ko defaree pare structure yëpp dinañ ñëw jël si ensuite ñu indi kit yi pour pay pour poste di ko avancé distribuer ko loolu lépp nag dinañ ko def trois jours avant màggal gi di commencé nga xam ne si ñun buñ demee ba nekk ci xat-xati màggal gi xëy na yu bari suñ liggéey dina dina dina dina dina pare ba tax na daal xat-xati màggal gi duñu mën a du ñu mën a duñu duñu indi lenn difficulté lenn gi comme ni ma la ko waxee sànq monsieur Lo nga doon itam pharmacien ñu gis ne am na loo xamante ni ñu bari dañ koy jooytu foofule ci Touba mu di ventre médicament illicite maanaam garabu mbedd yi ñu gis ne dañ koy jaay foofu bu baax a baax lan yan jéegool ngeen jot a def jëm ci wàll bi ci boor boobu. question bu am importance la ci contexte Touba. yaakaar naa vente illicite médicaments yi moom day ab réalité yoo xam ne si yàgg na fi te ancré na fi ancré yoo xam ne si dindi ko fii du du yomb te ku ne xam na loraange yi mën a jural population bi ndax médicament dafa bokkut ak produit yi médicament ginnaaw moom nit ki ko defar rek moo naan naan lii moo ci nekk lii la ci faj kooku war ngaa am ci moom confiance ba bu la joxee garab gi nga mën koo nga mën koo nga mën koo jël ci anam bu banam bu wër te confiance boobu nag mënuñ koo jaarale ci ñenn ñu dul professionnel yi nga xam ne si dañoo waat di yëngutu ci ci ci ci métier bi te ku ne xam na ne boo jëlee environnement Touba kenn ku nekk mën ngaa xëy ubbi sa sa di si jaay médicament te ñooñu dara du leen ci engagé non seulement amuñ benn professionnalisme ci li ñuy def maanaam ñoom wutum xaalis rek moo leen tax a jóg tax na nan lañ koy conditionné nan la ñuy aare mm, patients yi ci effet yi et cetera euh, fan la ñuy jële ay garab yu baax yoo xam ne si du lor ki yooyu yëpp du seen préoccupation nga xam ne garab gi mën nga koo jël soit muy garab goo xam ne si dara nekku ci nga xam ne ay ay ay ay ay poudre kese lañ leen di jaay wala muy garab goo xam ne si dose bi ci nekk dafa dafa ëpp ndax niñ ko defaree baaxul wala sax muy garab bu baax waaye niñ ko conserver baaxul ndax tàngooru metti ak humidité ak lumière ku xam na ne day yàq day yàq garab te loolu lépp xëy na ay aspect yoo xam ne si ñoom ñi dul professionnel xëy na duñ ci duñ ci duñ ci am benn benn préoccupation te loolu nag day day day lu dangereux ku ne xam ne dégâts yi muy def ndax médicament bu ne posen la te te posen mam day indi ay ay loraange yaakaar naa médicament boo ko jëlee ni ko war jëlee day day day faj mais nag boo ko boo ko utiliser ci anam bu baaxul yaakaar na posen la boo xam ne si ay loraange rek lay lay lay lay jural léegi loolu kon kon problème la boo xam ne si war nañ cee war nañ cee taxaw léegi nag ñun en tant que PNA yaakaar naa liñ tudde politique pharmaceutique bi ci réew mi dafa sukkandiku ci ñetti pàcc benn pàcc bi mooy ñi nga xam ne si ñooy yor réglementation bi muy direction de la pharmacie et du médicament ñi nga xam ni si ñooy contrôler médicament yi ndax qualité bi baax na muy labo national de contrôle des médicaments ñetteel ba nag mooy ñun di PNA pharmacie nationale maa ngi xam ni suñu mission mooy acquérir médicament yi dem jëli ko bitim réew ak ci biir réew yi di ko jox formation sanitaire ci buñ ko buñ ko soxla kon ñun lutte bi gannaaw ñun réglementation du suñu wàll contrôle qualité aussi ñeneen lañ ko denk ñun liñ man ci lutte boobu rek mooy fexe ba indil population bi alternative bu baax boo xam ne si dina tax ñu fàtte marché illicite boobu loolu nañ koy mën a defe nag mooy fexe ba point yi prestation yi bari buñ bari itam médicament yi am fa ci qualité bu doy sëkk ak quantité bu doy sëkk bu ko defee nit ñi danañ man jot ci garab yi ci anam boo xam ne si du leen indi yenn jafe-jafe bu ko defee du du leen indi nag ci ñuy recourir ci marché illicite yaakaar naa ñun loolu mooy suñu suñu mission mooy suñu rôle ci lutte boobu te yaakaar naa ñi ngi ci ndax euh, développé nañ ay stratégie yu bari yoo xam ne si li ko tax a jóg rek mooy fexe ba améliorer la disponibilité des médicaments au niveau au niveau périphérique ay initiative yu bëri jaar nañ fi lu mel ne dépôts-ventes yi lu mel ne jege sénat yi lu mel ne yegg sénat yi te loolu lépp li ko tax a jóg mooy fexe ba médicaments yi daal mën a yomb ci population bi waaye nag muy doon médicament yoo xam ne si ay qualité bu baax la ay professionnels yoo xam ne si am nañ am nañ am nañ am nañ une Euh, une préoccupation sur la qualité des produits ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo koy saytu ñun daal loolu la ñuy def te ñu ngi ci en tout cas daal dinañ fexe ba offrir population bi une alternative boo xam ne si dina fa tax ñu fàtte marché marché marché bi at bi euh, ñëw ci contexte boo xamante ni c'est marqué euh, par la pandémie du euh, coronavirus yéen naka ngeen fas yéene taxawee jëm ci wàll wi jëm wàllu mesure d'hygiène yi ngir askan wi gën ko mën a respecté foofu la ci dëkk bu sell. waaw jërëjëf comme ni nga ko waxee yaakaar na contexte bi ñu nekk nii dañuy indi ci. ñu adapté wu tuuti par rapport ak euh, liñ daan liñ daan def liñ daan def rek mooy euh, bala ñuy organiser dispositif bi personnel de soins bi dañuy toog waxtaan ci yan besoin la ñuy am ak nan lañ koy quantifier loolu lépp ñu men méngale ko ak budget bi ministère de la santé di di di di di joxe pour pour pour médicaments yi ak yëpp bu ko defee yooyu yëpp buñ ko boolee nag mën a taxawal nag benn répartition boo xam ne si danañu mën a may li ñuy faral di jànkoonteel ci ay ay ay jafe-jafe wala ay soxla ci affaire santé ñu mën cee répondre convenablement si noonu lañ daan defaree kit yi ak ay composition yoo xam ne si dana nekk en phase avec vraiment les besoins euh, des points de prestation de de soins waaye comme ni ko waxee ren naa Euh, ñu dellu si waat ak euh, ci jàngoro ji euh, di Covid 19 ku ne xam na ne mi ngi si réew mi jugee gu fi ba léegi donc ay rassemblement doon na loo xamante ni c'est très risqué jamono ji. jamono ji ñu toll nga xamante ni mbas mi euh, jugeegul euh, ci réew mi est-ce que yaakaar nga ne euh, comme nit ñi nuñ koy waxee ñaa ngi dem wutali foofu lee ca Touba mais est-ce que nit ñi dinañ respecter li nga xamante ni moo di consignes yi mesures barrières yi nga xamante ni moom moo mën a tax feebar bi du jaaree foofu gën a law ci réewum Sénégal. vigilant ak itam. voilà maintenant bu fekkente ne nag màggal gi jàll na comme comme ni ma ko waxee léegi rek. yaakaar naa PNA dafa am mission boo xam ne si mission bu am solo la waaye itam muy mission bu diis parce que buñ ne la réew mépp mépp nu fi nekk ci ay formation sanitaire moo xam ay hôpital la wala centre de santé de santé yow yaa leen war a jox li ñuy faje malade yi fii faju si aussi li leen di faj yaa leen ko war a jox yaakaar naa loolu mission bu diis la ba tax Euh, du ñàkk léeg-léeg muy am ay ay manquement ndax bu fekkente ne da ngay lu ëpp ay milliers ay mille références ba koo gérer sur toute l'étendue du territoire national kooku yaakaar naa mission bu diis la ba nga xam ne saa su ne rek médicament yëpp di teew ci béréb yëpp dina jafe. waaw docteur Lo dañ lay bàyyi rek nga daal di tontu suñu question bu mujj par rapport ak euh, vente illicite des médicament de la rue muy jaayum garabu mbedd yi nga xamante ni euh, Touba bari na fa lool ba ci fii ci Ndakaaru la euh, naka lan nga ci xalaat ak naka ngeen fa yéene taxawee jëm ci wàll wi nga daal di ñu daal di àndandoo rek tëj émission bi. diisaayu mission bi. dafa am aussi ay contraintes contraintes yoo xam ne si PNA moom lay jànkoonteel contraintes yi mooy lan ku ne xam na ne boo dee boo dee un service public acquisition yi ngay def maanaam yi ngay jënd da ko war a jaarale ci ay procédure de passation de marché yooyu itam di ay procédures yu diis yoo xam ne si danay faral di tardé ci ci ci ci ci ci ñëw ji garab yi di dugg si ci ci biir PNA. nga xam ne ay contraintes yo loo xam si yëpp xam nañ ko état bi nag ñu ngi ciy def ay allège ay allègement notamment ay dérogation et cetera et waaye loolu daal contrainte la bi ci des mooy aussi Sénégal plus de quatre-vingt-dix pour cent yi ñuy consommé dañ koy importer te ku ne xam na ne boo nee importer rek wax ay aléas yu bëri aléas yi bokk na ci problème matière première nga xam ne da ngay toog médicament bi ñu ne amatul ci adduna bi parce que matière première biñ koy defaree dafa dafa dafa dafa dafa manqué soit ñu ne la fournisseur bi kat prix bi mu waxoon mënatu ko ndax dollar bi dafa fluctuer ba bu ko joxee ci lool dana dana perte loolu lépp day aléa yoo xam ne si dana faral lool di retarder euh, acquisition acquisition PNA yi loolu di lool di beneen di beneen di beneen contrainte yi ci des aussi mooy parfois aussi PNA sur ay ci ay recette rek lay lay lay fonctionner te parfois aussi ñu ameel ko ay ay ay ay yoo xam ne si dana dana dana ko indil certains soucis finan financiers ba am quelque ay quelque blocage yooyu daal ay ay contraintes la yoo xam ne si xëy na PNA mi ngi ciy góorgóorlu état bi itam créances yi mi am wax dëgg fu ñu toll ñu ngi góorgóorlu parce que moom it dañoo yor ay programme yu diis yoo yoo yoo xam yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne yoo xam ne ñu koy ñu ngi koy ñu ngi ci ni ñuy ñuy acquérir garab yi loolu lépp ay ay ay ay ay difficulté ay comme ni ñu ko waxee léegi rek quel que soit difficulté yi ñun suñ mission rek mooy jéem a adapté wu ci contexte yi ba man daal réponse si ñuy mën a indi ci ci demande bi doon réponse yu yu yu yu acceptable c'est vrai c'est vrai que rassemblement yëpp moom day day favoriser transmission microbe waaye kenn ku nekk ak lay sa wàll yaakaar naa organiser ay événement ak ñàkk leen organiser eh, ci ci ci ñeneen la aju waaye ñun en tant que ministère de la santé d'une manière générale ak PNA d'une manière particulière lii suñu wàll rek mooy bu population bi taxawee ba soxla dara ginnaaw mission de service public lañ am ñu xool nan la ñuy répondre ci besoin boobu ci soxlas population boobu màggal am na ku xam na ne rassemblement bu bu mag a mag a mag la ak ay ay ay ay ay rencontre yu mag yoo xam ne si population bi dinañ dugalante et cetera et cetera te lool ay conditions yu favoriser transmission microbe waaye ñun na gannaaw loolu li ko war a décider décider nañ ko bana ba dana am ñu en tant que service public nan lañuy def ba population bi liñ soxla muy ñu aar leen duñ ko am wala buñ ko amee itam ñu faj leen ñun lool ci loolu lañ nekk ba tax na daal lépp luy tax ñi ko amagul duñ ko am muy lii tax ñuy respecter mesures barrières yi ñun danañ fexe ba disponible nit ñi buñ ko soxlaa ñu jot la ca des aussi mooy nit ñi nga xam ne si am nañ Covid bi nekk ci centre de traitement yi wala ñu leen suivre seen kër médicaments yi ñu soxla ngir buñ ko jëlee tane ndax ah, ndax dinañ ndax ndax buñ buñ ko jëlee tane ñu fexe ba mu am ci ci am yéen woo xam ne si heure buñ ko soxlaa danañ ci mën a danañ ci mën a jot ñun loolu mooy suñu mission suñu mission du nekk di xool ndax organisation et cetera et cetera mooy daal fexe ba adapté wu quel que soit le contexte ginnaaw xam nañ ne li ñuy def population bi moo ko moo moo ko moo ko moom seeni mbir lañ yor leen ko doxalal kon buñ soxlaa war nañoo taxaw ginnaaw nag maa ngi taxaw na organiser nañ ko kon nag war nañoo taxaw ci liñ ci soxla ci ay ay jumtuwaay pour que seen wér-gu-yaram mën a ñëw ñu andil leen ko te itam pour màggal yi suñu xel dal na ci bu baax ndax ku ne gis na. Euh, effort yi ci xalif général bi di di def effort yi ci def ba muy tàmbali joxe ci xaalisam ci sensibilisation yi aussi gis nañ masque yi di takk masque di raxasu ba pare ñaax ci nit ñi jox leen ci ndigal ba tax na am na njortu rafet ci ne euh, nit ñi ñëw danañ jël matuwaay yi ba daal euh, duñu wàlle maladie bi duñ ko amee ku ko am du ko du ko wàllu kenn loolu daal ñu ngi ci rafet nañ ci njort xalif bi jox na ci ndigal te en plus aussi dañoo nekk ci bërëb bu sell bërëb bu ñaan te itam ku ne xam na ne euh, ay jullit ñoo fi dëkk te ay jullitam dañuy gëm ñaan gëm dogal suñu borom gëm itam yërmande suñu borom xanaa ñuy ñaan rek màggal bi vraiment bu ñu ci jógee ci barkeb bis barkeb ki ko ki ko ki ko taxawal ak li mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko yonent bi suñ boroom sukkandiku ci yëram jaam ñi teggil leen natt yi ba ñëpp dellu ci seen jàmm dellu ci seen afiya seen afiya comme ni ngeen koy waxee loolu daal mooy suñu suñu suñu message bi nga xam ne si war nañ ko jot bi di leen sant di leen gërëm ci ñu lay jaajëfal bu baax a baax yow itam euh, docteur Mahamadou euh, Lo euh, di pharmacien doon it njiitu pharmacie régionale d'approvisionnement bu Diourbel ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité ak question réponse yu am solo yi nga xamante ni apporté nga ñu ko ñeel màggalu Touba bi ak taxawaayu pharmacie nationale d'approvisionnement ñu lay jaajëfal bu baax a baax di leen jox mbokk yi dig daje beneen yoon. ci seen émission meilleure santé comme ni ngeen ko xamee rek ñu ci ànd ak pharmacie nationale d'approvisionnement ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ba beneen yoon incha allah. émission bii di meilleure santé pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen ko doon may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp